saraax la def ci xew-xewu làmb tey fekk fa tafaatin ci digganteem ak rëg-rëg fekk fa lanjang porte parole taay si nga fekk fa Balla Gaye 2 ak Baye Ndiaye ak Aziz Ndiaye bu nu ko doo rek Balla Gaye 2 dañuy fekk journal ba jaaxle ci moom ba xëy sampub laaj Aziz Ndiaye ak rakkam jii di Baye Ndiaye ñu njortu ne retraité nañ bàyyi nañu làmb loolee est-ce que metti ci Balla Gaye ba jafeel ab carrière loolee mooy laaj ba jàngat ba sunu làmb def mooy Aziz mu ñàkk Balla ba léegi saa demee ndam lay indaale journal ba xam bàyyi lamb it ñu ngi koy ruumanaat ci suuf bu ñu fàttalikoo ca ak ba xamle mooy jamono joojee seen diggante dafa mel ni absence u Baye Ndiaye ak absence u la ci am Bombardier nangu couronne ba jamono ji muy ñàkk combaam ci digganteem ak en 2015 journal ba defab jàngat ne ñaari Balla Gaye di ñàkk yépp ci diggante Bombardier ak Eumeu Sène yépp àndut ak ñooñee àndutoon ak doomi Baye Aly Ndiaye di Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye njaay bi muy dellu siwaat ci digganteem ak Gris Bordeaux en 2018 dañoo gis ne ñaar ñooñee ñoo ko dar fekk mu jógee ci jamono yu metti jamono yu gàddaay Aziz Ndiaye taxawu ko kaw suuf ba mu am victoire ci bile combat digganteem ak Modou xarañ loo it noonee la fa demee loolee moo waral journal ba xamle ne ñaar ñi bu ñu retraité dana metti ci Balla Gaye 2 lool donte am na ñeneen ñu nekk ci staffam nekk ci ginnaawam di gérer mystique ya waaye tudde combat mi dalay arrangé nga jël arrangé wu la nga bàyyi noonee la xam le tafaatin bu nangu jël rëg-rëg damay soppi dem jëli keneen waa staffu tafaatin lànk ba tëdd ca ñag ba ne ñoom tafaatin war a bëreel moom tafaatin ci Gris Bordeaux la campé wala ci Lac de ñaari mbër yooyee la def ay adversaire ñoom la jàpp ne ñoom la war a bëreel waaye est-ce dana ko soppil adversaire loolee mooy laaj ba Pape Diagne Seras manager ni ca toon ne tafaatin accident ba ko dal ci digganteem ak Ama Baldé la bëggul mu dal ko ci digganteem ak rëg-rëg loolee moo waral mu ciblé Gris Bordeaux ciblé Lac de Guiers bu dee waa Tay Shinger ñoom d'accord nañ ci proposition ba leen Gaston defal muy seen diggante ak Bombardier may porte parole Tay Shinger moo xëy fësal li xam le seen mbër Eumeu Sène pare na noppi na ku ko jox avance suba mu jël ko moom Eumeu Sène ku ko xam-xam ne amul problème mu a ci digganteem ak Malick Niang yaram boo ko doon yër fii ba suba doo ci gis turu Malick Niang njort nañu liste boobee Yékini Junior ak Sa ñooy nekk ca bopp ba moom Garga tànn na ña mu jàpp ne ay adversaire am Gaston rekk lay xaar moo ca des ba muy daane ay kàddoom moom Garga ca la ko ama neex feelu ne ko tàppet nga buqat nga yaag Sa Thiès kuy wër ay tàppet ci lamb ji ba agsi ci yéen ñaar dalaan leen nuus jàpp kuy nekk ci lamb ji tey amateur xam nga ne Sa Thiès ak Garga Mbossé defuñu fi lu ma fi nekk ci lamb ji te xam lamb xam nga ne samay naataangoo lanu ku ci a bëreeg man dang maa ragal yàpp say supporter waaye ñoom ñeent ñooñee sama diggante ak ñoom bu ñe boo xam ne diggante tànk laaj jaan li naan tànk ci suuf jaan ci suuf yàgg-yàgg tase kii di Sa di Garga di Moussa Ndoye ba ci Yékini Senior bu nu yeboo préparé te xam ne danaa dal seen kaw bu dee xooyantaan deux géejawaay mbooloo moom lim nañu mu war a dal seen kaw xooyantaan ñan ñooy say naataangoo mu ne Pape Ndoye tafaaleer wala gay naa ko wala wulli yi mbër kuñ ma ci jox ma defal la bagage